Euh, Ousmane Sonko mun nañ ko épargner ci dossier bi wala mbir mi mën na bañ a décanté wu mun nañu def léthargie mais mun nañu ko té ci ay mbiru appel à l'insurrection mise en danger de la cohésion de de la cohésion nationale euh, acte terroriste euh, lan nga am ci dossier ci ci ci mbir moomu la. non li ma ci xam moom du la ko wax. ah yéen tax non du ma ko wax fii. waaw bu ñu coupé micro yi naa la ko wax mais du ma ko wax fii. mais dossier boobu lu mën a taxaw la lu ma xam ci dossier boobu du ma ko wax fii. mais lu mën a nekk la. ah lu ma ci xam li ma ci xam daal man du ma ko wax fii. Hmm. mais mais lan mooy doon la le ministre des enquêtes le président a en conseil des ministres non. Hmm. nee na nañ ubbi dossier yi ubbi enquête képp ku yàq wala ku toj wala ku def tuuti ñu traduire en justice wax na ko non voilà. mais lan mooy doon la suite nan la ñuy génnee ci ci ci ci ambroglio bi. len daal xam naa ko euh, am na yuy xew ci suuf. cest à euh, euh, Pierre Goudiaby ak aadama Lam ak Baïdy Agne ànd nañu ak keneen ku ma dul tudd ànd nañu dem dem seeti waa F24. Mm-hmm. bon daje ak euh, daje ak seeti euh, Tidiane Dièye ak Mimi Touré ak Aliou Sané et cetera waxtaan ak ñoom ñu waxtaanee euh, ñoom ñu ni leen léegi da ngeen di commencer par déjà marche bi nga xam ne moom ngeen prévoir gouvernement bi interdit ko ngeen renoncer ci comme ça bu ko defee ngeen permettre ñu waxtaan ñooñu aussi nangu loolu mooy marche ba lay passé nga xam ne gouvernement def ko interdit ñoo bàyyi ko. bi waxtaanee waa F24 soulevé ay points points yooyu yi ma ci mën a wax mooy wax nañ ni faaw président déclarer bàyyi troisième candidature wax nañ faaw prisonniers politiques yi génn ñi ñuy woy prisonniers politiques wax nañu ni euh, wax nañu ni il faut Ousmane Sonko noonu ñu encercler këram ñu dindi ko ak yu demee noonu quoi bon. Euh, ñooñu bi ñu fa jógee dem nañ seeti Macky Sall euh, bi ñu waxee affaire candidature Macky Sall na leen affaire candidature dama am sama agenda mouvement yi ci Sénégal rek force politique ni ñu amee seen agenda seeni marché marche ak seen manifestation man aussi dama am sama agenda donc moment bi ma jàppee ni ci laay war a waxee rek foofu laay waxee ñu ni ko affaire euh, ñu ni ko affaire euh, prisonniers yi ak prisonniers mu ni leen écoutez mineurs yëpp bàyyi nañ leen ñenn ñi nañ leen delloo seen famille ñenn ñi nañ leen yóbbu kaw bi ñu former leen wala ñu yaru leen wala ñaara euh, ñeneen ñi procédure la yoo xam ni voilà mi ngi devant la justice képp ku ci tàqewul laalewul et cetera dañ la bàyyi. mooy ñaari communiqué yi procureur. Dakar ak Pikine génne voilà maintenant voilà maintenant voilà après la ñu génne procureur daanaka maintenant nag ñi nga xam ne dañ doon sàcc wala ñuy toj wala ñu yàq alalu jàmbur. dañoo on est obligé ñu poursuivre leen juger leen ñu ne ko affaire Ousmane Sonko bi ñuy wërale mu ne leen rek dem leen seeti ministre de l' intérieur ngeen waxtaan ak moom waxtaan ak moom ministre de l' intérieur waxtaan ak ñoom ba pare et puis mi ngi leen di préparer rendez-vous ni pour ñu dem ministre de la justice waxtaan ak moom après nag bon dinañ rencontrer Ousmane Sonko sûrement après pour maanaam ay wax ngi am daal. donc Macky Sall dem ak ñëw ak yee ngi wax. Macky nangu na le principe de négocier est-ce qu'il y a le euh, nangu na le principe. de de négocier dama ni. Ah. li ma la wax nii yëpp am na fi. Mhm. comprendre nga maintenant nag fan la waat di mujjee gëtam loolu xaw ma ko. mais li ma wax nii yëpp am na ci comprendre nga gars yi je pense que li ñuy sàkku ci ministre de la justice d'abord mooy ñu desserrer le tout de Ousmane Sonko ah libérer ay Bassirou Diomaye Faye ak yooyu ak poser ay problème wu ay prisonniers politiques ak yooyu donc loolu la. ci ci li ma dégg. alors.